di baaxoo di teewlu xibaaru Bambouck dal leen a jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi. ñu ko daa ko tàmbalee fële ca commune bu Lour Escale nit ki fan yi ñu weesu nag am na mouvement bu bees bi nga xam ne daal dinañ ko fay taxawal ñu tuddee ko manko taxawu commune bu Lour. muy mouvement boo xam ne ay ndaw ñoo xam ne ñu dëkkee ci commune ba gannaaw ba nga xamee ne ci at yu wees yi ñu ngi fa dem def ay acte jëmale ko ci askan bi. ñoo dem ba jàpp ne war nañoo mën a euh, boole lépp daal di taxawal mouvement boo xam ne dinañ gën a mën a taxawu askan wi waaye lépp loo xam ne tamit li ñuy jëf ci commune bala ak décision yi fa war a jël ñoom ñu bokk si ñi nga xam ne ñoom ñoo koy euh, gàddu. nga gannaaw loolu nag moo tax ni ki ut bi weesu lañ ko daal di euh, taxawal mu dajale ay doomu Koungheul moo xam muy ndaw mag góor ak jigéen ñëpp daal di ci dugg ngir daal di taxawu li nga xam ne mooy commune bu Lour comme ni ko mouvement bi tuddee. ci loolu nag ñu daal di koy dippee jug jot na waaye tamit daal di ci génnee ay valeurs yoo xam ne dafay laal directement nit ki mu jëm ci wàllu jom fulla fit ak ngor mooy yi nga xam ne moom la ñuy doxal ci biir mouvement bi te képp ku ci bokk tamit dañ lay ñaax nga daal di ngàlloo li nga xam ne mooy valeur yooyu. gannaaw loolu ñaar bi ci SOS euh, bi nga xam ne daal nañ koy lancé ci kër gi muy laal benn. Eh, jigéen bu tudd eh, Satou eh, Cissé nga xam ne dafa daal di tawaat li nga xam ne nag dafa defoon opération ci gorge bi ni ki gàmm gi ñu weesu fële ca Kaffrine boobu ba léegi nag mu am ay jafe-jafe ngir mën a nooy waaye tamit am jafe-jafe yi wér-gu-yaram ba tax na nag way juram bu góor di Aliou Cissé daal doon jaar ci kër gi ngir daal di yëgal askanu Euh, Koungheul askanu Sénégal ba ci àdduna képp koo xam ne mën nga cee dugal loxoom ngir jàppale leen euh, ba euh, jafe-jafe bi nga xam ne doom bi mu koy rencontré ci wàllu wér-gu-yaram yàlla mun koo saafara ngir que mu mën a dellu si njabootam di fàttali rek ne moom xale bu jigéen boobu ni ki fan yi weesu rek ci la daal di ada at yu weesu boog ci la daal di am doom ba ñuy génn wala ba ñuy waaj li nga xam ne mooy tabaski bi ñoom nag daal nay sàkk bu baax ci askan bi ñu daal di xool ndax facture ordonnance yi bëri na waaye tamit li nga xam ne mooy feebar bi métti na ngir ñu daal di koy jàppale ba mun a euh, delloo si wér gu yaramam. ñu daal di àddu fële ci commune bu Mbour ak euh, li nga xam ne mooy plan d'assainissement bi nga xam ne jàpp nañ ne dafa manqué ndax bu mu xoolee taw yi nga xam ne am na fa am si réew mi yëpp waaye daal di laal Mbour gis nañ ne euh, foofu fu bëri dafay taa moo xam ci mairie bi marché ba. foofu yëpp dañoo gis ne euh, dafay taa jàpp nañ ne xëy na bu amoon plan d'assainissement bu baax boo xam ne daal dinay jaar yoon amaana problème yooyu yëpp duñ ko mën a jànkonte moo tax askan bi fa dëkkee daal di samp laaj di laaj ñan ñoo teg plan d'assainissement ak bu ñu ko tefee euh, nan la ñuy fexe ba askanu Mbour daal di si jëriñoo gannaaw loolu ñaar bi ci wàll tàggat yaram ak nawetaan fii ci Koungheul euh, niki Euh, démb euh, zone 1 B moo doon football ñaari match si loon bi ci njëkk jaraaf ak entente entente doo ko benn bal ci dara euh, ñaareelu heure bi war a amoon ci diggante ay ASC Jubo ak Déggo Jubo daal di koy door ñett bal ci dara niki tey nag ñaari match mooy am ci zone 1A bi bu ci njëkk dina am ci diggante neexle ak garab gi ñaareelu match bi war a am ci diggante daan ak Yogo bu 16h jotee fële ca stade municipal bu Koungheul